asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk di masawu réew mi yépp nag ci xew-xew yu mujj yi nga xam ni ñoo xew ci réew mi bi ma ci yitteel mooy internet bi nga xam ni dañ ko daggoon man nag bariwul lu ma wàññi ndax man fekk na xëy na xëruma ca googa xër waaye na nag bi ma defee stage jóge ci stage Makka muy stage bu am njëriñ boo xam ne bi lu ma doon def ci internet fukk wàññi woon naa ko ba mu des ñaar kon bi ñu defee restriction bi man jeexital gi bariwul ci man au contraire daf ma dimbali ci jot googu nga ko doon jox sax nga dem defi ko ci leneen mu mel na nag ay pexe la woon waaye nag pexe yooyu man jàpp ma ne pexe yuy jubla internet ci réew mi rek nga ko mën a restreindre réew mii nga moom ànd ak nag muy réewum def lu la neex kenn xalaatul xel xalaatul ci réewi nasaraan yi ñu koy def déedéet mukk États-Unis wala France ñemewuñu loolu même buñ ko defoon te tayuñu ko ci loo xam ne niñ koy waxee indépendant de leur volonté bu ñu paree daañu jëggalu askan wa waxuma la nag ñu dem di ko dagg kon li ngeen di tere mu jàll li ngeen bëgg tere mu jàll du loolu moo koy teree jàll foofu laa yem ci wax jooju danañ ci ñëwaat suñu tomb tey nag euh, liñ ci jublu xëy na laal na tuuti ci lii xew mooy ñu nekk ci réew moo xam ne mii dañuy théâtre ay comédien ñoo fi yewwoo su ma koy wax nag joxoñu ma kenn baaraam damay dugal sama bopp li may wax saa yu ma ne yéen rek ñun laa doon bëgg a wax xëy na damaa juum ndax ci ci réew mi laay yewwoo te ñàkkul gaarit yooyu ñu ngi ci man ay comédien au sens péjoratif du terme boo ko xoolee sax théâtre moom bi ñuy def comédie day am ay acteurs am ay spectateurs ñoo xam ne ñoom ñooy jëf comédie ga am ñu taxaw di leen seetaan fii nag ñëpp ay comédien lañ ñëpp ay comédien lañ état bi comédien la jàkkaarloog peuple bi di def comédie politiciens yi ay comédien lañ jàkkaarloog citoyens yi ñuy def comédie niti diine yi ay comédien lañ jàkkaarloog ñu leen gëm di def comédie ñi am alal ay comédien lañ ñi néew doole te mën a soppaliku ay cogg nekk ay comédien kon ku nekk yaa ngi doxalanteeg sa moroom comédie mascarade Sénégal kenn du yéen mën ngeen a nax seen bopp lool nax sa bopp nag ci misaal mooy di tàqamtiku te sexuloo dara lu saf fii ngay xëy di gis ay nit di tëggu di bàkku di bàkk lañu yor di daaneel leneen nag lu dul loola nga nekk ci dund gu metti gu bona bona bona bon di dund comme dund ku nekk ci àjjana yu suuf yëgaloo ko sa yaram yëgaloo ko sa yaram ku la gis day yaakaar ne amoo problème ngay tëgg ngay fecc ngay comaytoo ña ngay tiktok ña nga ca facebook bay wax fu ne wax yoo xam ne yii su fekkoon nit mën na ca jëlee njëriñ di ñoriku di xasante nga xam ni ñii kon yëguñu xiif beeg mar mi ak rafle gi di nax sa bopp ci kaw koo gis yaakaar ne yaa ko gën diine yaakaar ne la nga nekk rek mooy dara lu dul loola du tus réewum nax sa bopp di ngistal li nga war a def ne jonn ngay sàmbay àllar di baatre moo taxit ku la gërëmul nga mere ko te mën naa am dootoo ko defal la nga ko defaloon ba di xaar mu gërëm la kon mooy nax sa bopp naxante gi nag moom janoog nit di ko woy te mu wóor la ne yow mii li nga koy wax li nga koy wax yépp li mu yor rekk nga teg bët di jéem a gëmloo nit ñi lu tegwul ci dara lu dul ay lépp ak i sos loolu mooy naxante ku dàq daq dàq sos yaay waaja te lu lépp gën a rëy lu sos gën a rëy gën a yomb a gëm ñuy wonanteeg cofeel te ko ci tëroon mën naa am moroomam rey ko di raayante ginnaaw di gërëmante di taggante te fekk yow ki ngay gërëm ak di ko takk jàppewoo ko dara léeg-léeg nga dem ci mbooloo da ngay rus ngay rus prise de parole yi nga séen ñu koy brodé di ko borode mu wóor la ne yii ñuy wax yépp yu ñu sos la ngay am kersa di maslaa di raggante ginnaaw di rag raggalante ginnaaw nëbbal ma ma nëbbal la noppil ci saa yos ma noppi ci sa yos lii fi nekk ngeen baal ma ak ci ñi ma ko war a wax ñoom sax xam nañ seen bopp kon l'exception confirme la règle mën a fen xool leen plateau télévision yi soo demee ba yàgg da jaaxle nga ni est-ce que lii mën naa doon fen ak ni ko boroom tabaxee ak ni koy waxee ak gëmtu gim ciy def la koy waral mooy dangay gis ne du jaahil du gune magum jëmm soqi ko bi di fen ba cëkk ñuy fenante nag di warante di feccente kóllëre loolu moom moo ëpp léegi ci jamono ji koo àndal tey woy ko tagg ko tudd baaxam su ëllëgee nga mën a toog léegi ne daf ma war daf maa fen dafa tray te fekk yow loola yaa ko def wala ngeen defante ko ñu dem ba loolu dafa mujj banaal léegi banaal ban exemple lañu ñu war a jox suñuy doom ak suñuy jarbaat mbokk est-ce que léeg-léeg des na taxaw seetlu ci réew mi dund gi diine ji ak ndono gi est-ce loolu taxaw seetlu dina ci am tëdd ba xaaja guddi nga wéet ak sa njegenaay laaj sa bopp ay laaj waxoon naa ko fii yàggul ñu tàmbalee ci politik bi wut nguur ak jot ci nguur mooy ci bañ a teqalikook moom loolu mooy politique gu Sénégal mu jaral la lu ne nag ba ci bakkanu doomu aadama ñeme nga koo faat waxuma benn nag waxuma ñaar ak fumu mën a yem jaral na la ko daray askan ñoru la xanaa bëgg a faluwaat xanaa bëgg a leen topp askan woo xam ne wii ngeen bal ma ñàkk jom ñàkk ngor ñàkk xel muy xalaat di leen topp ndax ay rusit yoo xam ni ruusit yooyu ci seen alal la jóge ñoom seen yoon ci seen ëllëg de ak seen ëllëg gi doom ñi nga xam ni ñooy topp ay politiciens ak politiciens yi seen yoon ci ëllëg ñoom le présent rek kii moom mi ngi lijjanti lu ko fal kee ngay lijjanti lu mu def ci gafakaam ñu mel na ñu ñu pikiir wala ñu ak liggéey jàpp réew moo xam ne bii bu ñu taxawee naan la yaa fi ne walla ñu naan la yaa ngi ci sa ñoo ngi sa sa ginnaaw fexeel ba buñ la tax a dugg ci loo mënul buñ la tax wax loo xamul ndax yaa cay de yaa cay wéet soo ñëwee ci wàllu diine ji diiney ceddo képp nag képp quatre-vingt-dix pour cent diiney ceddo ñu naan lislaam ba mu duggee Sénégal patati patata li mag ñi liggéey li mag ñi liggéey haba am mansuura bida xërëm bokkaale tëgg ak fecc caaxaan loolu mooy diiney senegal ci daray xam-xam ñoru leen fii ngay gis mu kàllaf moo xam ne mii mënula tari faatiha bu set bëgg dem màkk nag dellu si di puukare lu ñuy woote nag tudde ko diine ñu àndandoo kër kër kër kër tëll tëll tëll laxasaayu ku ne di wone sa bopp te yow la nga war a xam ci sa diine li gën a tuuti xamuloo ko diine yi ndono ku ci bokkul doo dara ku santul nii doo dara loolu mooy li am moo nekk ci xelu nit ñi ba ñi nga xam ni ñoo ko bëgg a imposer imposer nañ ko ñiñ ko imposer nangu nañ ko ndax xam nga toog ñu lay upp yow ki yow mi ñuy upp xamoo lu xew waaye ki lay uppit xamul lu xew mel na yow dong yow mbooloo mi ñu toog yow dong yaa fi tàng yow rek yaa tàng ci mbooloo mi ñu lay jiif jiifal nga ne xugg xamoo lu xew nga toog ñuy bës say tànk di la sukkal di la raamal te yow wóoru la sax ndax kii lay sukkal ak a raamal ak di la upp est-ce que yaa ko gën fa yàlla lii am amul woon ca nguurug firaw na ga ni ñuy ci diine ba ku dégg seen tur fetasu jàppe wu woon nit ñi ñoom ay jaam waxuma laak di leen jàppe ay bant ay wax yu rëy ngay dégg ci réew mi dégg naa ci barki demb sax ku àgg ba ci yàlla yonent bi la doon jaamu yàlla nu yàlla jéggal kàddu gi naan inna allaha wa malaikatahu caaxaan nit ñi di fettasu am na sax ku nuy tudde boppam xutbul xaws xaw ma xut bu zamaan mu nga toog di ko dégg ay wax yu rëy te lii kat benn la bu ñëw ci sama xel rek nga jël sa dund gi yépp di ko werd te dara soppikuwul ci sa dund làmboo sa biir bi gis ne yow li ngay werd dindi na ci yow li mu war a dindi bu jë bu julli mënta dindi ci yow li mu war a dindi leneen du ko dindi inna salaata tanha anil fahshaay lu munkar kon duma àgg ci fin wu aaye bi li boroom xam-xam yi nag xam na li may bëgg a wax koo xam ne nag ay werd mënta di dindi ci yow dara nga koy werd ba yàgg dangaa war a taxaw nag inventaire boutique bi ba xam marchandise mi fu mu toll waaye loo xam ne yokku la zahir yokku la baatin tey nga gën a werd tey nga gën a ndóol tey nga gën a ami problème tey nga gën a wéradi tey la sa njaboot gi gën a tasaaroo bés bu ñu xëyee triant yaa ngi ci internet bi ak télévision yi lii ku ko werd lële ku ko werd lii boo ko defee nii téeméeri junni yoon fanweeri junni yoon lii ngeen di dund topp ay nit yow amoo loo dundale sa njaboot dal sax sa doom bu ko daggoon mu bala koo jënd ñu daw ba dee loo yor dajale ko dem tegi ko daayira dem joxi ko koo xam ni kii mën na laa jënd te boo ko lan làmboon biir ba gisoo lenn lu muy defal lislaam mu lay dig loo xam ne lii ñàkk am nga moo gën a wóor muy aljana ñàkk am gi moo gën a wóor ndax aljana ju àndul ak yaamu yàlla moom ku la ko dig yaag mooma yem samay wax nag ku ci gis sa bopp rek yow yaa tax may wax lii may wax nii lépp ci politique ak ci diine ku ci gis sa bopp yaa tax may wax képp koo xam ni kii danga umpale lislaam ci jëf su boo nga dem feneen wuti ko fa du fii ci Sénégal wax ji moom bari na aaya bari na ñu koy bittër ñi nag ak xadiis waaye lislaamu jëf ak dund newu fi xanaa théâtre ak sirk ñu ñëw ci wàllu aada culture jikko nga dem jël aaday jàmbur te la ca yées nga jël li yées ci aaday jàmbur nga jël la ca yées la ca gën nga bàyyi ko fa la ca yées nga ni ca lijj lijj jaaral la gën a rafet ci seeni jof méngoog alxuraan ak sunna amoo ci soxla respect de l'autre boo demoon ca réew yooya loolu la ñuy dund droit de l'homme xàq nit xam nañ ne doomu aadama dafa ami xàq dafa ami yelleef dafa ami wareef daañ la forcer nga def say wareef ba mu mat ñu jox la sa xàq ba mu mat yow mi nga xam ne yow nee ngaay yaay jullit sax melokaan ya ñu meloo doo ko melo du ci wax du ci waxin du ci jëf du ci jëfin bu ñu ñëwee nag ci say aaday bopp dëgg dëgg dëgg làkk wi nga xam ne wi moom nga nàmp ci say maam sax mënatoo koo làkk te raxoo ko bala maa dee mu naan sama wolof setul te dëggoo tubaab ci prix jógal ci sa bopp ñu ñëw ci koom-koom bés boo xëyee suba sa dund gën a bon gën a metti ngay xiif di rafle di feebar te doo faju bor yi ne la gajji gajjiral nga xamoo foo daw jëm sab sa tàmbalee sàggeeku xam nga bu baax a baax ñi la ko teg te nga mel na sañoo koo dindi kuy xool sax dafay mel ni li ñu la teg dalaa neex ndax ki nga xam ni moo la teg loolu léeg-léeg mu ñëw ci yow compal la ci ñaq wi nga xam ni ci yow la ko fompe nga guux ca guux su ndaw saa yu la soxlaa noonu lay def ak yow su la soxlaatul sànni la ca ñag ba ngay gën a ndóol rekk nag moom muy gën a jekk rekk suuf yi nga xam ni moom ngay donn ci say maam ñu xëy suba ne ko paŋet ci say loxo jox ko keneen walla ñu seddoo ko ñoom li ci biir suuf si dila romb bés bu ne bés bu ne muy ay mbell tubaab tudde ko ay ressources bés bu ne mu romb la yi ci camion yi ci train lenn li dugg ciy bateau bés bu ne mu romb la xet gi sax du la xeeñ loolu lépp di la dal jaralu la jàmmarloo ndax say doom ak say sët ëllëg bañ a dund sa torox sorox torox yow daal li nga xënte woo mooy sa tay sa tay rek fo caaxaan te loo am yàq ko loo am yàq ko man nag samay at mayetuma man xeex wax dëgg yàlla samay at mayetuma xeex mayetuma wàcc ci mbedd te duma ko def it nag am naa doom yu ko mën bés bu mu gisoon lu ko jar yaakaar naan danañ ca dem du ma ne kenn defal lii kon li ma dese léegi mooy des ak sunu boroom tabaraka wa taala mi nga xam ni moom laa ngoyoon ca njaalbeen ga moom laa doon ko ca digg ba bi ñu ñëwee ca cëppaa ndaw la moom rek laa doyloo moom laa taaxusuhu sinatun wala nawm dajjantul nelawut wa laqad xalaqna al insana wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kooku laa dénk sama bopp li ma gëm daal mooy yàlla moom mësta ànd ak ay tooñkat te la mu nam kenn mënta tere mu am suñu boroom mësul ànd ak tooñkat bi àddina sosoog léegi moom nag dafa am ay plan am programme aw tëralin waxoon naa ko fii ci fan yi weesu mën naa am na ko bëggee moom du ko ni defee waaye li wér mooy lu baan lu maandu lay def su fekkee ne gëm nga ne dañ laa tooñ boo defee la nga xam ni moo la war en tant umais ak nite muy sa dooleeg say pexe nga dem ba xam ne lii kat pexe amatu ci dénk ko say mbir dénk ko say mbir te xam ne nag sorewul yàggul doomu aadama yàkkamti ko defee ñu yemale kàddu gi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa